jigéenu APR yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba wala ñi ëpp ci ñoom mel na ni seen mer jéggi na dayoo ñoom ñu ngi wax ne kii nu dénk SEDAF di madame Mbacke Mariama Ndiaye la ñu bëgg nu jële ko fi na mu gën a gaawee. première dafa génn ñu def ci ay femmes pour ñu financer leen liste boobu bi mu génnee man bokkuma ci woon responsable yu mag yi bokkuñu ci jeunesse bi bokkuñu ci woon léegi bi liste boobu génnee biñ ko yëgee ci benn panel lañ ko yëgee. léegi bi ñu yégee ne financement dafa génn te waa Touba responsable yu mag yi génnuñu ci jeunesse bi génnuñu ci maaleykum salaam. seeni kàddu mujj dog-dogee la ko waral weesuwul police bi nga xam ne moom moo ñëw ngir jëlee leen foofee nga xam ne foofu la nekkoon di préfecture ñu fa doon xaar ministre de la femme. problème bi mooy ministre de la femme ndax noo bëgg a imposer madame Bakke madame Bakke dañoo xeexal Macky Sall. ba ñuy xeexal Macky Sall madame Mbacké yëgu ko fekkewu ko tey mu ñëw bëgg nu ko ruutal duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba président Macky Sall laay waxal man Adja Soda Dieng may wax ak moom lii day jeex lii day jeex lii day jeex day jeex oto laa jëm sama oto laa jëm sama oto ah, laa jëm bu leen ma ah, soxna yi te madame Ndeye Saly Diop Dieng namoon a am ci préfecture bii nu mujjee yàq bâche ba mujj gi sax mel na ni ndaje boobee dañu ko mujj toxal wala sax nu fomm ko ñun nag dañuy interpeller le président de la république Macky Sall parce que lii premier pas la moom li ñuy def mu ngi ci kanam dañuy continuer le combat continue li nu bokk te ñu war ñu cee boole dañ ñu ciy boole jàmm ne boyi bu nu ci boole te ñu bokk ci askan wi ndax nag ministre de la femme bi fi toogee société civile parti opposition parti au pouvoir ñëpp lañ cee bokk.